góor a ngi nii dugg ci ab pharmacie di jënd garab ngir doomam ju wopp ba mu duggee mu jël kayit wa jox ko jaaykat bi jaaykat ba xamal ko ne ko kat garab yi day cher na lool góor gi jaaxle ndax amut lu mu ko jëndee mu jël kayit wa di bëgg a dem soxna si nga xam ni mooy borom pharmacie bi woo jaaykat bi ne ko jëlal mboolem garab yu góor gi soxla nga jox ko ko mu dem te bu ko laaj dara fi sabilillah jaaykat bi woo góor gi jël garab yi mu soxla woon lépp ni ko jëlal njaatige li moo la ko jox te yàlla dong tax góor ga kontaan lool jël garab yépp dajale ko ci am mbuus di ñaan yàlla soxna si yàlla defal ko aw yiw ñaanal ko it jaaykat bi ba góor ga demee jaaykat bi ñëw ci soxna si ni ko li nga def tey dey gis naa lu bari nga di ko def ci pharmacie bii ma la doon laaj lan mooy secret bi soxna si ni ko li tax ma di ko def mooy yonent bi yàlla bi sallallahu alayhi wa sallam daf ñu jàngaloon ni képp ko nekk ci aajoy sa mbokkum jullit yàlla nekk ci sa aajoy bopp yow teyit ku dindil njàqare sa mbokkum jullit fii ci ëdduna yàlla dindil la njàqare ëdduna ak alaaxira te ku suturaal sa mbokkum jullit yàlla suturaal la ëdduna ak alaaxira li ya tax ma di ko def kat ñaareel ba mooy bi ma nekkee di jàng njàngum pharmacie ca l'université ba sama waajur wu góor dafa génn ëdduna ma jaaxle ndax amatuma dara lu ma mën a dimbale ca njàng ma ma dem ca sama najaay di sàkku ngir mu dimbale ma ba ma mën a wéyal sama njàng waaye sama najaay doonoon ku nay lool tontu ma tontu bu naqari lool ma jaaxle aw ma menn pexe ca laa génn kër ga dem ba ma xëyee nag ki daan toggal sama najaay fekk ma ca sama kër daal di may jox xaalis ba bari ni ma sa najaay moo la ko jox nee na nga continuer sam njàng ci lii te nag weer wu jot dana la indil lu ñuy toll na góor góorgóorlu bu baax ma jël xaalis ba diirub ñeenti at toggukat boobee weer wu jot mu indil ma xaalis bi ni ma sa najaaya la ko jox ba ma réussir ma delluwaat ca kër sama najaay ngir gërëm ko moo toggkat ba ba ma tàmbalee wax sama najaay araftu ma ni ma comme toggkat bi laa doon fay muy xaaj saleeram di la ko jox lu ci sama yoon ca laa xamee nag ndeke toggukat bii day saleeram la doon xaaj jox ma xaaj bii xaaj ba ca des mu dundale ko ak njabootam ca laa amoon yéene nag fu ma gisatee ku ñàkk danaa ko dimbale te yàlla rekk tax jaaykat bi ne ko waaw ana toggukat ba mu ne ko toggukat bi kat booba laa ko gëj a gis ndax xaw ma woon fu mu dëkk ndax kat la mu doon def yàlla rekk a tax da ci doon nëbbatu waaye ci ndimbalug sama boroom kër ak gëstu gu yàgg ca lañ xamee fu mu dëkk yàlla dogal na sax ma tabaxal ko këram defal ko lépp lum soxla ci këram ma nga fay dund ak njabootam ci jàmm te sama alal jéppit bu ma ko ko joxoon duma ko rëccu ndax defal na ma ko kon yéen samay bokki jullit jàngat bi mooy képp koo xam ne dimbale nañ ko ba mu réussir ci ëddunaam tey ba am fu mu toog saa boo gisee te sa mbokkum jullit bu mel ni yow nam meloon démb nanga ko dimbale te yàlla rekk tax su ko ñépp doon def kon dey réew mi dana bari lool ñu nekk ci jàmm tey jàmbat gi dana wàññiku ko lool waaye day dangay gis léegi ci jamono jii ku ñu dimbale ba mu réussir waaye bu gisee ku ko soxla lool mel na meloon démb da koy xeeb te di ko ko wan loolu day baaxul mbokkum jullit ñaareel ba mooy gis ngeen góor gi toggukat bi ni mu def ak soxna sii kon képp kuy defati ñil sa mbokkum jullit na nga ko nëbb nga la mbokkum jullit ndax nëbb googee nga di ko ko nëbb yiw la wu yaatu wu kenn xamul na mu toll te képp ko defal sa mbokkum jullit te nëbb ko te yàlla rekk tax lu mu yàgg-yàgg danga ko jotaat fii ci àdduna mbaa nga jot lu ko gën a bari te yowmal qiyaam la nga fay fekk ci aw yiw moo koy gën a bari lool lii dey waxi suñu borom la tabaaraka wa taala nañu ko bokk bàyyi xel الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون